salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum monde entier waaw ñu ngi nuyuwaat ñëpp di jëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay et di def benn taxaw seetlu rek maanaam ci orange Tigo Expresso maanaam nax yi nga xamante ni ñu ngi koy nax sunu njiit yi teg ci bët jéemuñu ci dara parce que société bi français moo ko moom. damaa toog ba si yàgg ñu envoyé ma benn jeu concours ni ma vous avez souscrit nanga maanaam. bokk nga ci te man laajuma ko ma woo waa orange laaj leen ni leen lan moo tax ngeen dugal ma ci mu ne ma bu dee bëggoo cee bokk da ngay def 21 500 pour nga génn ci stock au 20 ma ne ko lan moo tax may def loolu lan moo tax avant ngeen ma cee dugal laajoo leen ma ba pare ngeen jékki-jékki dugal ma ci te niñ ma ko defee noonu lañ koy defee képp koo xamante ni am na puce orange te loolu ay arnaque la 100 francs 100 francs yooyu 8 millions personnes yi nga xamante ni xam orange li maanaam orange li ñu am ci ay prise ëpp na 8 millions mais dama jox jël exemple ci 8 millions maanaam 8 millions personnes yi nga xamante ni am nañ prise orange rek 100 francs 100 francs yu ñu leen dagg weer bi xam nga ñaata la 800 millions. orange ñu ko dagg ci loo xamante ni yow doo sax yëg doo ci bàyyi xel ñoom ñoo jékki-jékki rek dugaloo ko di dagg sa xaalis at bi xam nga ñaata la millions yi at bi xam nga ñaata la 9 milliards 600 millions. 9 milliards 600 millions orange di ko dagg suñuy 100 francs 100 francs.

man pour man suñu njiit yi bëgguñu dëkk bi dëkk bala nga koy développé da koy bëgg te ñun amuñu ay leadership yàgg naa ko wax Sénégal amuñu ay njiit yoo xamante ni dinañ opposé wu contre blanc yi ay complexe lañ nga jóge ci cent franc cent franc yooyu après nga yëg trois cent yi nga xamante ni mooy dalal ton ñëpp am nañ dalal ton te xaaj bi ñu bëri bëgguñu dalal ton da ngay jékki-jékki rek gis ñu dugalal la ko doo ko yëg

2 milliards 800 millions la ñu koy dag chaque at chaque weer te bàyyi sax xel at bi mu nekk 33 milliards 600 millions bu fekkoon ne xaalis boobu sax dañ ko jëlaat delloowaat ko ci dëkk bi mais déedéet dañ ko jël yóbbuwaat ko France parce que ñoom ñoo moom seen société imposé ko Sénégal ba pare diñ ci nax chaque at dalal tonne yi 350 350 33 milliards 600 millions la yoo xamante ni day dellu Europe boo ko cent franc cent franc yi euh, yi nga xamante ni neuf milliards six cent millions la dafa jox quarante trois milliards deux cent millions yoo xamante ni ñoom ñu ngi koy am ci ñun. muy trois cent cinquante trois cent cinquante yi ak cent franc cent franc yi kese laa la wax de quarante trois milliards deux cent millions la ci loo xam doo ko yëg sax doo ci bàyyi xel ñu la koy dagg doo ko yëg nga ñëw ci boo jëndee téeméer crédit ñu dagg la fukki dërëm fukki dërëm fukki dërëm yi cent millions fukki dërëm fukki dërëm 400 millions la 100 francs 100 yi encore yi nga xamante ni boo génnee 1000 francs ñu dagg la 100 francs 800 millions la boo génnee boo boo boo lebee 2000 crédit ñu dagg la 200 yi 1 milliard 600 millions la maanaam fukki dërëm yi 100 francs yi ak cent yi rek boo ko boolee boo ko boolee te lii xam nga leb bi leb bi nekkul chaque weer bu doon chaque weer la sax mais leb bi da ngay leb tey suba mën ngaa lebaat lebaat tey su loolu ñaata milliards la yoo xamante ni sëñ bi orange ñi ñu koy def. di ñu naxte suñu njiit yéen koy gis fukki dërëm fukki dërëm yi cent franc cent franc yi deux euh, deux cent deux cent yi deux milliards huit cent millions la deux milliards huit cent millions ci loo xam ne ay arnaque la nga boole ko 43 euh, milliards 200 millions yi mu jox la 46 milliards yoo xamante ni orange ñu ngi koy am ci ñun ci loo xamante ni ay arnaque kese la sunu gouvernement yi sunu njiit yi kañ lañ ñuy dimbali ngir yàlla ak yonent bi gëm seen bopp ñu imposé suñu dëkk li nga xamante ne ñun moom la lu am kañ lay commencé kañ la ñuy commencé maanaam di di di di demal suñu bopp kañ depuis 1960 ci lañ wax ni am nañ indépendance Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a pauvre ci àdduna ak li ñu wax lépp loolu la ñu am ay zircon ay gaz ay pétrole bu feeñ nangam ak nangam Sénégal ba tey jii 1960 ba tey. ñi deewoon ñëpp li Baye Sall waxoon Baye Sall moo ko wax de te dëgg la ñi deewoon 1960 ñëpp koo ci yee day jubal këram directement ndax ñàkk changement boo xamante ni am na ci dëkk bi ku jot ku maanaam entreprise yi nga xamante ni ñooy jógee ñooy jógee étranger ba di ñëw ku ñëw nax ñu en collaboration avec suñu njiit 46 milliards ci ay arnaque te orange ñu koy def orange moy 46 milliards ci li nga xamanteni ni mën nañ ko sax xayma bolo ma ci Tigo ma ci espresso yep nek ay nax yo xamanteni señ bi ñi Sénégalais ñemewul jóge Sénégal dem ba Europe diko fa def européen ñemewul tok Europe diko fa def après suñu njiit yi gis lolu di ko dama mësa mos dem Mauritanie en passant suñu tën yi tën yi nga xamante ni maanaam moom lañ waroon sol pour liggéey dañoo ñëw ba frontière bi naar yi ni ñu waa Mauritanie Rosso ni dañuy dédouané tën yi par force mais bi sama jabar mayoon pour ma yóbbaale ko foofu dama dem ñu nangu ko gëm seen bopp nag Mauritanie bii rek ñun mënuñoo gëm suñu bopp mënuñoo xam ñun ñan lañ dëkk yu bëri Sénégal lañuy jënd li nga xam moom la ñuy dundee ba pare gën ñu koo yombale suñu njiit di nekk fii rek di lekk suñu xaalis ba ñox ba ku bëgg xaalis sax da nga naan xaaral ma dem pour nekk politicien kañ lay jeex kañ ndax bi nga xamante ni Tigo Orange Expresso ñi ngi ñu koy def gouvernement bi di ko gis di gis ñu ñuy nax kañ lay jeex kañ waaw parce ñoom am nañ ñoom bu ñu la naxee garaawul parce que ay député 3 millions ay kenn doo comprendre kañ lay jeex kañ kañ la naxante bi di jeex. ci dëkk bi